wolof yi dañuy wax ñu ne ñu ne golo ñu ne ko mën ngaa yéeg ñu ne ko sa ngembal baay tag na waxit la ñun ñoo ne ñoo yore majorité Macky Sall bañ bëgg ñoo xañ suñu ak ak suñu yeleef nañ ko ko won jalaguñu dialoguñu tey dialoguñu suba ñu fi nekk ñi ñëpp wax ji jarul guddal de man duma ci sori campagne électorale wi lay commencé yéen yi leader yëpp ku nekk am nga musique de campagne sonorisation bu minuit la ñëpp rëkk ku am sabar tëggal ku am bool tëggal ku am daan ndënd tëggal parce que campagne électorale commencé na tey à partir de minuit ñu mottali ko suba fii ci trois heures rassemblement de tous les candidats mais jéggi candidats yi ñëpp ñi nga xam ne dañu contre report de l'élection présidentielle et à ce rassemblement nous invitons les observateurs internationaux il faut que vous veniez constater l'état du processus électoral au Sénégal parce que vous étiez venu pour contrôler les élections. Vous ne pouvez pas vous absenter, à ce grand rassemblement. Nous invitons aussi à ce rassemblement de demain la presse internationale pour que vous soyez témoins des dérives autoritaires de Macky Sall et de son pouvoir et de la régression démocratique au Sénégal li ma ciy teg rek mooy campagne électorale bi nga xam ne moom la ñu wax yemul ci Ndakaaru rek mais sur l'ensemble du territoire national et la diaspora parce qu'on a huit département yu nekk dans la diaspora donc à partir de minuit je le répète campagne électorale commencé na fii ci Sénégal ku nekk la nga daan def ci sonorisation ci tëgg ci xumbal ci décliner ce programme na nga ko def salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh